daal dina wërëñ nag yor naaru góoram fan la jëm fekk tubaab yi génn nañ deux cent cinquante SPJ ak quatre mille cartouches joxoon leen ne leen dem leen Mbàkke Bari 10 août foo leen fekk Ahmadou boo leen duggee dëkk ba taal leen dëkk ba rey leen jur ga jàpp leen mbooloo ma jàpp sëñ bi indi benn muy dund baa mu ñàkk ba kanam sëñ Tuubaa laaj ku ma mën a ŋàbbal sama gaal gi yanul ma sama gaal gi doo tàggoo ko ñàpp doo ko yenne sëriñ Balla Joor Mbàkke na ko mën naa ko boole ko ñàpp yanu sëñ Tuubaa war awnullahi dëgmal nag béréb ba nga xam ne ca la jëm fan la jëm mooy war a dajeeg SPIC 250 SPIC yoolu 4000 cartouches Serigne Touba di rëpptal yooro yoor 11 heures moins naaru góor wa yéeg ca montagne ñum jeewal wa mu ne sëñ Abdoul Karim Touré Abdoul Karim ba sama maaru jéeg fas wi ne mal na tal Iblis laa jëkk a séen mu xawee ko simmee ko ba set daan na mbër mu fi mas a ñëw jëroo ma simmee ko damaa yónnee waaye kii maa koy songal sama bopp sëñ Tuubaa ne mu may joxañ ne kee de yàlla rek a ma ci doy mu arrière ni xar muy dañ na ci samay tànk til na det mën a jokk ci doxam na ko niij mu ne wóoy na ma boo teggee nu tàggaloo yéen yu ma mas a yaa ci gën a seewle waaye yaa gën a dëgër sëñ bi ne aye sa mi ni laa ànd jeewali iblisa is naa daytuhu bi yaawali inna la si maxaaliqaa jeewali lahu nidaan muuqinan bi yaawali tapi ci bir xur wi nag moom Cheikh Ahmad al qadimi spc espèces wër ko xur yu ñuul kukk ak mbubu yu kegi ak xeesaa yi fetal yi jolli di 4000 kërtus sëñ tuba nag cipp naaru góor wi sànni der bi ne allahu akbar tàbbal ci seen bir mom Cheikhul qadim julli julli lako ko selmal la claire mi jité won armée bi waxu ñëw ci Serigne Touba nako jot nañ ordre ndigalul bul yendul bul mu ne ku len jox ndigal ñu ne ko xanaa ki ñuy wax borom dar mu ne acam ndigal li ma jot man ahmadu bamba mooy ki ko jox ndigal mu jaamu ko mu lànk jox ma ndigal ma di ko jaamu nee na naa fanaan na allah akbar xoolal cheikh ahmadu bamba ñaar téeméeri soldat ak juróom ko wër la jor ordo yor ñeenti junniy kërtus na la doo yenn doo fanaan nga ne wërëñ wan leen ginnaaw cheikhul xadim fanaan 10 août 11 août di dimanche mu fëgg leen na leen bismillah and ak ñoom ñëw 12 août la sëñ tubaa ñëw ndar ginnaaw bi mu yendoo luga ba noppi fan lay waajal 10 août di alterné di fukki fan ak juróom di ñaar fukki fan ci weeru safar la sëñ Tuubaa wàcc ndar waxtu timis ñu téye ko 40 jour lañ ko téye ndar ñu manqué ñeenti fan ñaari fan 40 jours lañ ko jëkk def ca ndar mooy dañ ko tàbbal cib néeg boo xam ne gayndee fa nekk moom la ñuy tuddee jardin des jeunes boobu tubaab bi dañuy wax nañ signé kenn du joxe asaka da fay lempo naan sangara tasaare diine ji ñett ña jëkk a lànk ay jàmbaar lañ bañkat leen ñu tàbbaleen gaynde gi lekk leen Cheikh Amadou Bamba keroog bi mu leen di suñee ñu koy dugal ci kaaf gi day arrière di baj baj yi dellu ginnaaw tubaab reetaan naan daa ragal di ko puus sëñ tubaab na déedéet sama sang ba Mouhamadou Rasulullahi moo ne ma Ahmadou négal ma ñëw yéex na maa xam ne gaynde fa nekk ndax Rasulullahi ma taf cib dënnam na ma sama xarit gi sama liggéeykat nga kon wa man takun bi rasulullahi nusratuhu in talqa al فلا يخاف ولا يرجل وراء زمنا إذ الوقاية تغني عن الكنني نختلا يم شي عمر بامبا تونت تونت غورنور جنرال لو خامن نيب تاختاي الاسلام ييكتيكو ان 1895 ني دادي رك 83 و شي عمر بامبا 42 ييب دك سنغال 42 ييب دك سي سوريزون بي ني كومبغي لين غورنور جنرال تيرل اي بروغرام دا غين دي باي دينا جي شانجي كولتوري توخال مولو يي نيب yëmu ci muy wax ba yàgg mu ne leen baat bii ma leen wax na ku ko weddi danaa la rey ndax je suis Dieu ana mudabbirul umur maay yàlla maa yor mbir yi maay dogal maay atte ku weddi faatu kenn tontuwul ñëpp na xeram ñëpp na teg l'islam dese benn drapeau di jayaalu di yuuxu di wax ne sama ndam tay la yem cheikhul xadim na ñokket ñeen fukki kilo boo ko peesee di ko mat ñeen fukki at la amoon gën caa néew jëmm xaftaan ba amul poos mu ne ñaadam ñaadam ñaadam ba fekk góor noonu fi mu taxaw te kenn ngi mu koo xool mu jël baaraam ba teg ci jëba dugal ko ci diggante casquette baag jéga di gësam bopp bi ne ko gazette mu dabbiru umra hayyun yamut wa sa tamutu fa amruka gharibun kàcc يحسب كل من قصد الدرني ليومين مو داس نان 5 سبتمبر دي بروسي بي ني اتي شامدو بام ني كونفيكي وات كو لا 5 سيغ توبا نا جالنج بي لو غورنور جنرال فك ني سابي مو ني ورر دربا شيخ القديم نا الله اكبر كبر بامو جولي بسلمل مام شيخ القديم بامو جولي بسلمل مام شيخ القديم لان لا تي تك ana kan moo ma woolu ci yéen fekk bureau bu fees dell ku ma woolu ci yéen kenn nit ku fay tontu ñoom ñëpp a daw génn ñu atte ko 5 septembre na dañ koy denc ñetti projet bi ñett la génne nan koo faat ba kanam éliminer ko wala ñu tëj ko kenn duutu ko gis wala ñu exiler ko génne ko ñett yooyu lañ tëral biñ ko atte 5 septembre le 18 kenn xamul fu mu nekk dañoo nëbbu Cheikh Ahmadou Bamba benn taalibeem bu baax ba bu dëggal ba bu wér ba murid sadiq ba Cheikh Ibrahima Fall moo trouvé ba xam la fan la Cheikh Ahmadou Bamba nekk bi ñu ko àttee 5 septembre am na ñoo xam ne le 18 keroog lañ door a xam bi mu fanaanee Ndakaaru tubaab yi jëlee ko foofee moom Cheikhul Khadim yóbbu ko fan daa jot waxtu mu dem moom Cheikhul Khadim ñu jëlee ko fa nag ban jamono 18 alxames fu ñu ko jëmee ndakaaru dugal ko ci saxaar goog mat lañ ci taal sëñ bi day taxaw fañ ko dugal fañ du fu ñuy dugal ay nit sax mu agsi moins 35 moins 40 Cheikhul Xadim boole ko koor ga ak xiif baak coono ya na ak a neexoon ma am lu ma doge sama koor ngir dundal sunna wenn waxamaa ne daw ñëw na ko ab néega nga ne moo ko nettali boppam ci jasaawu shakur al atu fi jaab nee na bi mu dawee ñëw na ko néeg bee neex naa noppaloo sëñ Tuubaa nee na ba ma ñëwee néeg ba koo namm ci moom ab dund doo ko fa dugal néeg ba daa tàng jër fu waay war a teg tànkam xott bi ne la fa nekk baag rab mboolem lii xet gu ñaaw ma nga ca sëñ bi yor tànk bi ñu nungu dàll yi mu teg ko ci ràbb yëg ne ràbb ci la ko teg mu bës tànk ba ràbb nga jàll mu yàkkamte teg beneen bu ñu tëj buntu ba nee na yàlla yudi jibril la ko xoolal ma xol bi gaaw lambal ma ko bu gaññee baa mu ne us baa mu jàmbat baa mu ne métti na ma ala ko léegi nee na bi jibril di ñëw ma def istirjaa ñett la fekk sama xol asabru wa wa rida yàlla jërëjëf yàlla gërëm naa la yàlla lii baax na yàlla lii neex la lii yàlla muñ naa ko leen ko yéen ñi nga xam ne yéen ay malaykal mugarrabina ففي رك مو سختي موم دغر بتا مستنى وخني اذا ذكرت ذلك المبيت وذلك الامير والصبوت طارت الى الجهاد بالارماح نفسي ولك دبا لما كا سما زفن رسولو سي علم برين لا دي زارم كونتر لي سيلمي مي لا بروفيت كي مي دي كونزان ان مارسون دو لا فيكتوار فينال اذا ذكرت ذلك المبيت وذلك الامير والصبوت طارت الى الجهاد بالارماح نفسي ولكن دبا عن الماء ñetti fan lekkul naanul ñu defe ne dana dellu ginnaaw ba lu bee ngëm nga a dëgër ku ko fekkaat ci ba di ko seere soxna jaaratullahi maam Mariama bu soow jërëjëf Sëriñ Tuuba jërëjëf Sëriñ Tuuba Cheikhul Khadim ñu jëlee ko fa nag muy samedi 21 21 septembre fan la ko bi ixraaji xudubal xaasri isbaana annahu yulinu xulubal baax da jami chawaridi nag génn ñu exilé ko génne ko réew mi moom Cheikhul Khadim le la fa jógee 21 kere bi muy yéeg bato bi jenn jigéen daa xool sëñ Tuubaa ba yàgg mu yuuxu na ko Mbàkke yow képp yaay góor Amadou yow rek yaay góor ku mas a jaar fi yak sa yuuxu ya ak sa coow la ba kenn gisatu len nga yëg ba sore na wërëñ bismillah talal len ma ñaanal len dal na Cheikh ibrahim Fall Ibrahima ana lam azab ila li khidmatin qumtu biha wa silaha fi asa safar faqat ma ngi dem di wuti lo xamne li ngeen bëgg do len ko am do len am jàmm do len noppul lu dama dem ba ñëw bu ma demee ba ñëw fu neex nit noddu fu neex nit julli fu neex nit taaw fu neex tuddu yàlla waye ndam li mako yor ma Ahmadou bam na wërëñ wone ginnaaw kan la àndal xaribun la da junde ahda wa silaha midadul dun wax turaysu bi shukri Cheikhul Xadim xalimaak da rek la àndal kon waxtu julli bi la ñu